encore une fois de plus ce qui est important c'est que boo wootee dialogue des gens viennent ñu dem am ay consensus tout le peuple ne dañu ci dialogue yëpp avant ouverture dialogue bi ñu nekk ko de grâce point bu ñu am consensus na ko matérialiser intégré ko ci constitution bi wala ci ci code électoral mm. ça c'est un consensus qui s'est dégagé alors bon sang qu'est-ce que les gens veulent que ñi ñu toog waxtaan arrivé d' ci ay points d' accord ñu war ko yóbbu assemblée ñu duñ ko yóbbu assemblée nationale ce sont des points d' et ça a été une demande sociale encore pendant combien temps les gens ont dit il faudrait que Khalifa Sall Karim Wade dem dem élection mm. pourquoi on parle pas de Sonko parce que aujourd'hui à l'heure actuelle Sonko n'a pas reçu un arrêt définitif tout <coughs> actuellement bu élection amoon tey dafay bokk bokk donc moom mënul bokk ci cas boobu. mais dara da boo koy waxtaan da ngay toog waxtaan poser poser la la la le vrai la le la la véritable expression pour ñu mën a apporter peut-être des points de vue parce que loolu cette somme de points de vue moo ñuy permettre mooy permettre téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu mun a am une religion se faire une religion et comprendre effectivement li nga xam ne comprendre ñu ko mais man damay wax man mooy wax je par en tant que parlementaire te man j'ai la chance. d'être parlementaire au niveau africain gestionné pratiquement <coughs> l'ensemble pays africains dem naa parlement européen xam naa li xew dans les parlements comment les parlements fonctionnent comment les pays fonctionnent bu ma ñëwee toog on euh, waxtaan lu mel nii damay jël la ma ja la ma expérience ba ma am assemblée nationale dem bi am ci lijaasa loolu dama koy mettre à contribution ci débat bi. mais ñëw na fi aussi tamit pour raay la dañ lay. dañ non loolu eh, yow xam nga ma non kii man man xam na non. non mais ki dama ko. dama ne maa ko invité.